asalaamaaleykum askan wi ñuy bàyyi xel ci seen site bu am solo bi di sunugal 24 point net mbokk yi sunugal 24 point net ni ñu koy safoo di defee saa su ne di seen jotaay xalima bu ñëw xalima bu ñëw del si wat fii ci diwaanu euh, Fass Mbao cité Mandela bu ñu ko waxee mbokk yi yaakaar naa dootuñu leen koo présenté di jëmm ju baax di Serigne Moustapha Ndiaye Al euh, mbokk yi moom la ñu fas yéene amal jotaay yaakaar naa dootu fi gan balaa ñuy sori loolu dañ koy bàyyi mu leen teg mbokk yi euh, Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim asalaamaaleykum. wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Mamadul Muntaxa ginnaaw ba nu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam santaat bu baax Cheikh Nal Xadim Xadim Rasul di ñaanal Sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa ñaan borom bi subhanahu wa taala may ko fan gudd lool ak wér ba ay naalam ak yéenam lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee ci barkeb Sëriñ Tuubaa noonu yi laa koy ñaanale Cheikhuna wala wasilatina Cheikh Ahmadul Muxtaar Mbakke maa xablahu maa maxtaar di ñaan borom bi subhanahu wa taala may ko fan wu gudd lool Mbàkke muy xalifa Cheikh Mahamadul Moustapha di ñaan sunu may ko fan wu gudd ak wér dafal ko it mboolem kilifay diine yëpp noonu laa koy ñaanale bunti kër yi diine yëpp nag fu ab a ne ci kaw suuf nag sax nag waaye sax boole ci doomu aadama yëpp ngir wala xadd karam na bani aadama yàlla na sunu borom daf ci réew mi jàmm rawatina waxtu wi nu toll ñoo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala ni ko Cheikh Mahamadul Muntaxa ñaane barki démb ci réew mi sant ko jullit ñëpp rawatina taalibe yi ñu mas a jàng alxuraan tubal borom bi subhanahu wa taala laabal sunuy xol delluwaat ci sunu borom ñaan yàlla ci réew mi jàmm réew ma mi jàmm jooju ñuy sàkku ci réew yàlla na suñu borom daf ci barkeb sëñ Tuubaa noonu de bokk nañ ci ñi nga xamante ni suñu yitte yëpp mooy jàmm am ci réew mi mooy sunu yëng mooy sunu dal benn bëgg-bëgg benn bëgg-bëgg rek lañ am muy bëgg-bëgg wab yi ñoo ngi siyaare bu baax buntu kër yenu jige yëpp nag tàmbalee ko ci njabootu sëriñ Daaru Xasan Njaay jàmbaar ju mag joojee ak njabootu seex mu jiibu jigal jombaar yu mag yooyu nga xamante bi ne nii falal nu sunu borom boole ñu siyaare seenu njaboot yëpp di ndokkeel bu baax nag ñëpp rek di la fay ab nuyoo sëriñ Muntaxa di la jaajëfalit ci dellusiwaat gi nga dellusiwaat fii ci kër gi fekk si ma fii ci Fass Mbao te leneen rek tax laa jóg muy gis na fii njariñ a fi nekk nga bëgg a tasaale njariñ lool yi ngir jullit ñëpp mas ci jariñu ngir dami aadama yëpp sax mas ci jariñu loolu nag yàlla buñ ci gis sunu bopp ñu ñuy dégg ñu ñuy dégg nag wala ñu ñuy gis te di ñu bàyyi xel yàlla nañuy jëfandikoo seeni xel ci noonu te bañoo jëfandikoo seeni xol ci noonu te xam ne it seen moromu doomu aadama rek mooy wax ak yéen wax ji mën naa am jumte jëflante gi mën naa am jumte waaye lu ci mën a am tamit na ngeen xam ne suñu yitte ak suñu bëgg njariñ la lu àndut ak lor xoseen noo lor kenn jariñ képp lañ làmbal loo ci mën a gis nag ak loo ci mën a dégg na ko jàppee noonu te xam ne njariñ képp lañ ëmbal doomu aadama yépp amaluñ kenn loraange sunu yitte daal ak sunu bëgg mooy jëriñ nit ñi bañ leen lor léeg-léeg nag boo dee wax am na ñoo xamante bi nii buñ la dee bàyyi xel duñ xool li ci baax li nga juumle képp la ñu xool te duñ la ko bal ñooñu nag maa ngi leen di ñaan nan ñuy dimbale te yàlla rek tax di xoole li ñu baax le te ba bañoo xool li ñu ju li ñu manqué le jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ Moustapha Ndiaye Al allah mbokk yaakaar naa dootuñu leen ko présenté ci itam borom ci wàllu ñaan yàlla waaye tam euh, ci wàllu faj tam bu ñu waxee rek euh, Ndiaye rek dëgg-dëgg euh, bu ñu nee waa kër sëñ Daaru Assane Ndiaye rek xel tam tabarkal da nga xamante ni tam macha allah wàll bi tam seen wàll la. sëriñ Moustapha Ndiaye Al Karim mu mel ni ba nga jógee Touba Mbacké yàggul dara xam naa jotaay bi sax daanaka dañu ko yombalal li ndax xëy nga man moom. Euh, saa suy su ma la ñaanee xëy dana xaw a jafe lool waaye tam nga yombal ni li mel ndax askan bi moo soxla suñ la ko waxee tam nga ubbil ni say bunt mhm. mu mel ni tam mu mel ni itam li mhm. ki nga xamante ni muy Serigne Cheikh euh, Ahmadou Moukhtar xalif Daaru Xudoos maa ngi santaat bu baax sama sëriñ boobu yi nga xamante moonu lépp lu nekk ci nun mën nañ koo ko sante ginnaaw dogalub sunu borom subhanahu wa taala muy Cheikh Ahmadul Muxtaar xalifa Cheikh Mahamadul Moustapha di 19 janvier bii nu génn rek nga xam yàggagul dara mu taal ab otoom ànd ak ñu bari ci ak njabootam wal ma boppam téléphone ne ma maa ngi di jëm si sa kër di ngan goo xam du lu ñu waaj du lu ñu waajal ma jékki-jékki rek gis jëmmam ju sell ja ki nga xam moo fi des ci doomi Cheikh Mahamadul Moustapha bu góor tey ji yoonu murit mu bokk ci ñan ci ñi ngan ko yoon wi nga xam bokk na ci ñi ngan ko yoonu murit fi mu toll nii kooku nag bu demee ba déplacé wu ka ko tax a jug ñor na ko te bàyyi na ko xel kon loolu maa ngi santaat yàlla bu baax te di ko ñaanal yàlla na ko yàgg def yàlla na yàlla yàlla na yàlla yàlla na ko yàlla suñu borom saxal ci loolu mu yàgg jug di ñu fi yàgg ñëwaa fekk ca kër ga Touba ak fii ci Fass Mbao it nag ndax ñu ngi fiy waaj ngan gu mag goo xamante bi digaat nañu ko ba mu ñëwee ci kër ga ngir war a ñëw fii ci Fass Mbao loolu nag ñu ngi koy séntu bu baax a baax incha allah. rabbi tabarkalla mbokk yaakaar naa loolu euh, dafa doy sëkk tabarkalla mbokk yi di euh, Serigne Moustapha Ndiaye Al Karim mbokk yi gis nga rek muy bu ñëw ni euh, ma ko waxee itam saa su ne itam buñ ko mu jafe-jafe itam mu yombal ni lu nu mel duñu def lu sant ko ci bu a baax fekk ci wat ko fii ci diwaan Fass nag jotaay xalima bu ñëw ñu tàmbali ci dugg bu baax a baax Serigne Moustapha Ndiaye Al mu mel dañuy dellu si waat ci jamono ñu bëri ñu mooy sonal ne sëñ bi dafa wax loo xam ne ci wàllu seet mus ah dégg ko de bëriwul wala mosuñu koo dégg sax lay wax. Euh, daanaka seet bi ak foo mënta toll ci jamono mën na laa gis ba sax sa biir poos mën na laa gis euh, sëñ bi loolu. domaine seet boobu jaaxal nañu bari. maa ngi sant yàlla bu baax ci loolu ndax loolu lépp yàlla la neex rek mu mën a am ndax suñu borom mooy may nit lu ko neex mooy def ci lu ko neex xool ay at xool ak juddu xool aw askan. Mm-hmm. Euh, yàlla mooy def lu ko neex ngëneel muy fàttali lu tax siis ngëneelu yàlla. yàlla fu ko neex la koy def ci ab jaamam jàmmam bu ko neex la koy def la koy jox kon nag yàlla xëy na moo jël ngëneelam jël ay xéwalam jox nu te loolu bokk ci muy wàllum seet seet nag ni ma la ko waxee woon rek te am ñu ko dégg taxoon leen a jóge fu ne ci àdduna ñëw fekk si ma faas mbaaw am ñoo xamante ni tax na leen a yónnee seeni alal ñu seetal leen ñu ëpp ca ñoom nag ba ma leen seetalee yónnee war nañ ay xaalis ñu jëfalante ak ñoom ci wàllum ñaan te diggante bi yàgg gut loolu nag dama sant yàlla ndax xëy na ñaan mu nangu wala xool gis yàlla lay neex te yàlla nag mi muy suturaal ci loolu maa ngi xool nit ñi di leen gis waaye nag di leen wax lu leen jariñ mooy képp koo xam seetal naa la li ma lay wax soo ko bàyyee xel nga xam yow bi nga may woo di ma seetloo leen rek moo la tax a jug xam lu lay lu lay lu lay jàllale sa àdduna xam loo xamante ni lépp lu la doon lor fexe ba mu tàggale ko ak yow bu dee ne ñaar yooyu ngay seetlu muy tegal la sa dund man damay wax ne sama seet suñ mun taxaa kilo kii nga woo téléphone ne ko damaa bëgg nga dugal ma xalwa wala nga dem ci moom ne ko damaa bëgg nga dugal ma xalwatu bu ba noppi li mu lay wax ci xalwatu ba ëpput li ma lay wax ci ak seet man maanaam li dama ne ki nga xamante bi ni moom lay am ñetti fan ci biirum néeg du la dugal ak ki nga xam day weer du dugal xalwa ki nga xam fukki guddi ci ab néeg dugal la xalwa bu duggee xalwatu ba noppi li mu lay tegal sa dund mën naa la ko wax ci juróomi minute man. waaw sëñ Moustapha foo bi fan nga man nag am njare njare laa. man njare laa dëkk. li tax ñuy tudd sëñ Daaru Asan sëñ Daaru Asan dafa bokk njare dëkk njare kon moo tax ñu koy tudd waaye ñun sëti maam dem ma Njaay njare lañ gàmbaar ju mag joojee nga xamante ni lu ne wane na ko ci kémtaan ci kaw suuf foofu mooy foofa mooy suñu cosaan fa lañ bokk ba noppi it ñu nangoo gëstu gëstu sonn ci lool ci gëstu sàkku xam-xam ndax xam ko toog di ci wan am na ci nag yoo xam ne coobare suñu borom la ni ma la ko waxee gëstu mayewu ko am njàng mayewu ko ndimbalul yàlla lu yàlla dimbale ak jàmm la seet nag moom damay wax ne dégg naa ci ku ne xam naa ci ku ne waaye li ma ci suñu borom dénk gisaguma ko ci kaw suuf ku ko yàlla dénk ndax ko noonu ma ko waxee ku lay seetal ba di la wax ba di la wax ba li la si biir poos mu di la ko wax di la tegal sa dund bàyyiwul dara loolu ndimbalul suñu borom la moo tax seet moom noonu ngeen koy faral di wax rek <laughs> ki ki wane kiraama ci wàllum seet moom ci réew mi ñu nekk miracle um seet moom loolu moom yàlla dogal na ko <laughs> waaw euh, di wax tamit ak ni waaw yow da <laughs> xam-xam rek la. d'accord xam-xam rek ndimbalu yàlla rek la. Euh, doon ndaw loo xam damay wax ni nit gone bu bàyyee lépp dëgmal yàlla war naa mën a ñaan yàlla di ko nangu war naa mën a woo yàlla yàlla di ko wuyu te ñun bàyyi nañ lépp àdduna toog ci Fass Mbaye gi di jàmm yàlla ba nga ma ba nga ma dalee dégg yàgg na te fii nga ma gisee mosoo maa gis garam place mosoo dox Ndakaaru ba dañu mag benn barabu fowukaay fii rek nga may gisee te yaag ñëpp ci bokk yam nag juróom-ñetti at yi maa ngi faas mbaaw kenn ni mosumaa si benn barabu caaxaan foo ma gis ak màggal la wala gàmm wala cant loolu rek jërëjëf sëñ Moustapha Ndiaye Kariñ jàkkaar naa mbokk yi ni ma ko waxee tam noonu la euh, turam mën nga ko yàgg dégg waaye tant ñëwoo fii moom mm-hmm. euh, tarkalla yaakaar moo sa gisee moom dina mën a yomb comme na ma ko waxee mm-hmm. ñu daal ñëw ci wàllu ubbeeku euh, sa Moustapha Ndiaye El Karim ubbeeku lan mooy ubbeeku dëgg-dëgg turu ubbeeku lan mooy ubbeeku tudd nga lu baax ci nit nag ubbeeku mooy lépp de mooy bayre mm-hmm. loo xam mooy ouverture moom la moom la tubaab di wax baat ouverture mooy fexe ba ubbi ki ba nga xamante bi lu mu laal mu baax su diggee ci mbooloo ñu ne ma nga ne su génnee ñu ne ma ngay dem maanaam loolu muy ubbeeku yombut waaye yomb na ñenn ñi nag ñun nag damay wax ne ubbeeku bokk na ci li ñu li yomb damay wax ne dafa am yoo xam bi ma koy jàng bi koy def mhm. maa ngi ci daara ji di jàng ubbeeku ci la bokk nopp ci la bokk nopp boole ñaari nit bi ma koy def maa ngi ci di jàng sama moroom ñooy dégg ma bokkoon ak ñoom daara ja xam nañ loolu may wax dama ne boole ñaari nit bi ma koy def maa ngi jàng laa toll léeg-léeg ma xo ubbi kaamil bi xool fu ñaari nit war a ànde ma daal ubbi bu dee ne ay miim la ma ubbi seen ñaari tuddee nga xam maa ko kenn jàngalu ma ko li may wax nii kenn jàngalu ma ko. ku ko jàngal ku ko jàng ku ma ko jàngal boo koy weddi ko maa ko jàngal sama bopp. te boo xasee ba boole nit moom est ce que mën a taxale kenn mën na ko taxaleem di. waaw xam nga xam nga nag xam xam nga nag man damay wax dëgg. mooy lu ma xam-xam am na ñu ma gën a xam xëy na ci ci ci lenn li. xëy na nag mën na maa bañ a xam ku ma gën a xam. Mhm. waaye nag du ma nangu ne maa gën a xam ñëpp moom waaw ci wàllum ñaan mm-hmm. du ma toog fenn naa ma dàq ñaan ñëpp wala ma gën a ay ñëpp ci wàllum ñaan waaw loolu dama koy nangu xëy na xam-xam bu mu yàlla dénk rek mm-hmm. yàlla bu ma ko gisut yàlla mën na dénk man dama mën na ma ne mosuma koo gis wala mosuma koo dégg waaye nag du caagi ni li may gis ak li may dégg rek am waaw daal ubbeeku moom ubbeeku daal képp koo xam moom la yittewoo ubbeeku fexe ba ubbeeku mm-hmm. ba boo dee jaay mu jar boo dee boo dee jaay ñu ñëw di la jënd looy yëngatu am ci ak ubbeeku ba ci politiciens yi sax nga xam ne da ngay politique bëgg foo riire mbir ñu topp la mbooloo mi topp la nga dugg ci xoli doomu aadama yi loolu lépp mu ngi aju ci bay ci man da nga ko am alhamdulilah waaw mbokk yi yéen a ko dégg Serigne Moustapha Ndiaye alkarim mbokk yi di am mbégte lool nag saa su ne am ak moom jotaay tabarkàlla euh, ci xam-xam gi itam ci ak ci wàllu paj bi nga xam ne ci àddina bi moom la ñu fekk si waat fii ci diwaanu Fass euh, Fass Mbao cité Mandela di leen fàttali numéro téléphone baa ngi noonu affiché ci baaru écran bi 77 524 23 24 wala beneen numéro bi 77 440 02 40. ñu daal di ñëw ci euh, jàngoro yi nga xam ni tam. foofu waaw ndoxum siti émérite xeet yu mel noonu moom feebar yooyu képp kum dal. boo ñëwee ci man dinaa la ko traité ba mu wér. feebar la nag yoo xamante ni nii maa ngi ciy gën a soññi nit ñi ñu bàyyi ko xel. Mm-hmm. ndax ni Serigne Sànki woote nit ñaa ngi wuuji te te mënuñoo wér. te jàngoro yaa ngi gën a bëri mhm. kon nag jot nañ gën koo bàyyiwaat xel gën cee soññiwaat sëriñ si ñu gën a tegaat mbir mi ci gon ci ci yoon te garab yi man gëm naa ne man du ma du ma weddi ne nit ki amul xam-xam mhm. waaye léeg-léeg da nga gis sëriñ boo xam dem na ba léegi mbooloo mi na nga ko wuyoo barke ba tubaarkàll ba tëlul sa defaral boppam ay garab loolu nag maa ngi ñaan sëriñ si nañ bàyyi gone ñuy defarloo garab yi dañ mhm. ko defaral seen bopp nañ ko daan defee ci njëlbeen ga ndax am waaye dem na bu mujj ki affaire bi demeetu noonu loolu nag mooy barke bu bëri mooy dem ba nga xamante ñoom egg nañ seen jot mayetu leen ñu mën a composé garab amatu amatuñ mélange amatul jotu def mm-hmm. loolu nag dafa mat bàyyi xel nañu mélanger seen bopp garab yi di ko jox nit ñi nit ñi mën a wér man nag boo doon naa nit ko nit ñoo xamante gone yi nekk ak man xam ne loolu ci man mm-hmm. amuñu leen jël garab gi takk ci mbuus yi loolu rek lañ ci def ñoom macha waaye mélange maa koy defar sama bopp may compétition sama bopp samay garab ba mel na mu war a mel ku moo tax képp ku ñëw ci man a teel a teel jàngoro nga mën a wér alhamdulilah moo ko waral macha allah néew kattan moom moom moom xam nañ su tedd si ah, man sunguf si dama ko doon dégg xam nañ ko ci man fi mu toll si moom moom moom moom maanaam moom beneen mbir la moom kattanu sëy rek waaw ak jigéen gu mëntu am doom même góor gu mënut am doomu jigéen. waaw ku mu ci mën a doon ba ñëwee naal traité ba nga mën a am doom ci ba yàlla boole ci a am doom ci àdduna. macha allah ci kàttanu mu mel nii santaat nañ la beneen yoon jot bi bariwul te gis nañu daanaka sax yaa ngi nii di waayat ci bërëb bu sell bi di Touba Mbacké amaana sax daanaka mën nañu semaine bu jot yaa ngi fa. waaw euh, lay tàggatoo. waaw santaat yàlla bu baax a baax rek na ñaanal Cheikh Ahmadoul Mokhtar donte xam naa li ñu a wax lépp mënuñu koo wax ndax euh, gàttaayu waxtu wi tey nit ñaa ngi toog dina xaar kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rek te ñaanal sëriñ ahmadul muxtaar mbàkki xalifatu cheikh mohamadul moustapha al karim di ñaan sunu borom may ko fan wu gudd lool ak wér ba mu eggale yéenam ak bëggam lépp ci barke sëriñ Tuubaa di ko ñaanal sama waajur wu jigéen nag mhm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla sàmm te may ko fan gudd lool ak wér boo sant ñëpp ñuy gën a taxawu seen waajur yi rawatina waajur wu jigéen lu mat a bàyyi xel la lu mat a fonk la waajur yëpp jar fonk nag waaye rawatina waajur wu jigéen ndax loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo nu ko digaloon dañ ne ko waajur nday leneen nday ne nday ne nday ba nu ñetti yoon mën a di tudd bàyyi kon nday am na doole lool ci doom kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant yàlla noonu yàlla wane lewaat ci jàmm te lépp yàlla njariñul mm, seen bopp barke Cheikhuna al Khadim astafirullah li wa lakum wa li shahadil muslimina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu santaat nañ ko beneen yoon di sëriñ Moustapha Ndiaye alkarim mbokk yi macha allah ku ko dégg itam xam ni itam saa su yëkkatee kàddu ci xam-xam lay waxee waaye macha allah mbokk ñu fekk si waatoon ko fii ci diwaanu euh, Fass Mbao cité Mandela di ko santaat beneen yoon rek di ñaan allahu bur bi subhanahu euh, doole guddal fanam lool doole ko defal tawfeex ak taysiir nag yaaxaa defal ko sax daare ni ci barke Sëriñ Tuubaa euh, Xaadim Rasuul mbokk yi mu mel ni numéro téléphone yaa ngi noonu 77 524 23 24 wala beneen numéro bi 77 440 02 40 mbokk ñu ngi nii mboolem équipe technique bu Sunugal ci wàllu éclairage bi euh, caméra bi euh, Cheikh da ngeen di ko bel cant ak ngërëm ci wàllu réalisation bi Serigne Aliou Top ci wàllu présentation bi ngeen ci doon ànd ak seen mbokk taalib Mouhamadou Lamine Mountakha fii ki diwaanu euh, Fass Mbao cité Mandela yàlla mi borom jàmm teet ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na borom bi doon la ñuy defal jàmm dina wax salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu